mboolem xel kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootul fay. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yëpp di nuyu bu baax sama mbokk yi te seen caméra yi am ay laaj yu jëmale ci man sama mbokk journaliste yi di rafet bu baax seen liggéey. di leen masawu coono ndax fan yi xam naa ni sonn ngeen trop ak Covid 19 bi nekk ci dëkk bi lëmbale àdduna yëpp yéen a ngi ciy jëndee information yu dul jeex yàlla na yàlla fay seen taxawaay ak seen jàppale gi ngeen di jàppale doomu aadama yi. tey waaw coow xam coow moom du ñàkk ci marché liggéey nañu de huit heures ba presque quinze heures. fi coow li tàmbalee mooy fi commerçant yi commencé dugg si di jénnee seen bagage ñoom en personne wala coow li commencé boo xëj na du ñu am maîtrise bi des fois boo xoolee sax ñu ngi nii ba léegi di jénnee seeni i kon nga xam ne ni bon ñoom comprendre nañu mais na du ci ñàkk ay mer yu ndaw way jàppal bàyyi yooyu moo ci am yoo xamante ni xam nga mënul ñàkk ci mbooloo bu daje daal non non non non loolu mënul demee noonu parce que bon hangar bi le maire Ousmane Ndoye moo jénne benn arrêté pour wane ni képp ku fa am bagage vendredi la ko jënne quarante huit heures may nañ la nga jënne sa bagage boo ko jënnewul dinañ la ko jënnel wutal la fu ñu ko teg am benn sit bu ñu teg bagage yëpp avec leur numéro benn par benn kenn jegewul bagage bañ na xale yi ku ciy dugg yorul saak yorul dara ni ñu soloo noonu la ñuy duggee pour jël seen bagage yëpp ranger la ko pour ñoom ñu ñëw jël ko là vous ba léegi nii may wax yow maa ngi koy répété waat ngi génnee ñoom seen bagage ñoom si seen bopp kon ñoom xam nañ li ñuy def lan la. ñi nekk ci alentour bi yàlla par exemple les produits cosmétiques ñoom ba léegi seen bagage ñu ci biir ñoom nekk ci alentour bi. yore seen produit cosmétique yi boo xoolee coow li lu ci ëpp ci ñoom lay jóge parce que ñoom ñooy indi coow li wax naa ko waxaat ko mënuñu am joyau bu mel nii foog naa yéen gis ngeen ko oil présente duñ la wax xëj na bon xëj na ñu ngi ci duñ ci wax duñ la wax exactement ñoom lan mooy seen problème bañ d'accord naa nit ki mën nga bañ dara mais soo koy bañ nga ne man lii laa bañ lii laa bañ lii laa bañ ñëpp xam nañu partout dans le monde ñu ngi jéem a moderniser marché yi lan moo tax ñoom ñu bañ parce que benn am na ku ma ci mës a jege benn yoon donc promoteur bi bi muy defar daf ñu waroon laaj suñu abi ci plan bi est-ce que c'est normal kuy investir ay milliards am di laaj benn nit ku am cantine avem ci plan bi muy def yanul maanaam encore bi ñu gën a bëgg mooy li fi xew nii ba léegi am ouverture ci mbedd mi di encombrer mbedd mi mais loolu dafa war a jeex yooyu la bañ amul leneen. parce que bukki yi nga xam ne hmm. hmm. bon bii du ma wax ñaareel damay am lu may bañal sama bopp mooy du ma wax dégg naa du ma wax nee nañ ma. lu ma wax leneen kenn nettluwuma lii ma la nar a wax man toog naa ma ne leen man riverain laa bi may commencé là où je peux parler je suis agent municipal ñëw leen ñu dem toog waxtaan waxtaan bi def nañ ko à maintes reprises lu toj quatre cent et quelques cantines la mais lu toj trois cent et quelques yi trois cent quinze lu ko jénne est-ce que naxe mbaay la le délégué di marché délégué bi ci boppam mm. ah moom ay kantinam toj nañ ko est-ce que délégué bi moom war nañ ko mën a nax délégué bi ci boppam am na lu mat ñetti cantine ba ci ñeent ay cantinu rakkam sax toj nañ ko te délégué bi tey gii moo wax la leen lu nit ñi bu xamul y a trois cent et quelques cantines ci kaw canal canal 4 bi canal comptable bi est-ce que xam nga ni promoteur bi en personne moo leen recasé ci kaw canal bi te kenn du fay dara xam nga lu ñuy joxe parfaitement dix mille xam nga ñan la ko jox les locataires parce que pour am ni dafa ne du ma sànni locataires yi bu ma jëlee man man man maay bailleur ma luyee la tey gi yow su ma jëlee man sama alal qu'est-ce que tu deviens moom mu ne léegi man séquma locataire euh, euh, bailleur yi li ma séq ak moom mooy nañ ma wan kayit gi nga xamante ni mooy wane ni maa moom cantine bi ñu photocopier ko classé ko bu ñu demee ba marché bi pare ñu laaj la yow mi moom sa cantine lan mooy sa activité bi nga bëgg a def su fekkee niveau un la nekk ñu yóbbu la niveau un bu nekkee niveau deux la nekk ñu nekk yóbbu la niveau deux bu nekkee niveau trois ñu yóbbu la trois defal la ko jox la ko te doo joxe dara ako ah, il faut mu leer ci bopp nit ñi kaay ma defaral la ba mu sotti delloo la sa yëf te doo ma jox benn centime. kon promoteur bi bi parce que on a on a là où je am na am na am na deux cent et quelque am na deux mille cinq cent cantines ñu ciy parce que bu dekkee niveau cinq la L L plus cinq la moom mën na ci gis boppam ñun suñu quartier mën na ci gis boppam parce que dafay am.